entreprise Kër Mouride di entreprise bi ñu taxawal fii ci Touba Mbacké di def service ak commerce pour lépp lu jëm ci wàllum bâtiment rawatina finition yi moo xam électricité la plomberie peinture meuble décoration ak lépp lu jëm ci wàllum sanitaire lenn lu ci nekk nag ñu indi leen ko fii ci Touba ci marque yi gën ci àddina bi. Jàll euh, solo taaliba sëñ Cheikh Saliou Mbacké euh, ñoo fas yéene amoon yéene plutôt euh, taxawal fii entreprise. buñ naan Kër Mouride histoire bi nag euh, jëlewuñ ko ci lu dul ci njàngalem sëñ bi mooy maanaam fexe ba lépp lu gën lu baax fexe mu ñëw Touba. donc ci loolu lañu ñu war tuuti àdduna bi euh, ak ci biir Sénégal jéem ci lëkkalook ay euh, partenaires yu am solo pour mën a indi ay produits yoo xam ne méngoo naak jëmm dëkk bi ak ormaay dëkk bi. Kër Mouride seen jubluwaay maanaam seen objectif bokk na ci indil leen fii ci Touba Mbacké lépp lu gën ci wàllum finition bâtiment alors objectif bi nag nañ ko wax objectif bi du objectif bu commerce rek mais mission la ci ñun mission mooy fexe ba lépp lu gën ñu dax indi Touba donc euh, loolu moom mooy objectif bi di ci ñaan ndimbalu sëñ bi ak euh, tawféexu euh, sëñ bi ak jàppale yi mbokku taalibe bi Kër Mouride dafa lëkkaloo ak ay partenaires yu ràññeeku ci àddina bi te am lool expérience ci fànn gile. dinañ am vraiment ñu ci citer remercier leen donc du ñu commencer lu dul citer et remercier le partenaire en fait Prisma Industrie euh, pourquoi choix bi sur Prisma mooy nii dañoo doon ñoo xam ne ñu xarañ la ñu yàgg ci milieu bi loolu moo mës doon seen liggéey mu doon ay cas anciens cadres yoo xam ne ñu ngi nekkoon seigneurie Sénégal. Euh, ñii wër àdduna bi aussi am yeneen expertise yeneen expérience yu ñu am ci àdduna bi dikkaat ci réew mi xam nga pour bëgg a jël loolu lépp en fait jagleel ko réew mi ci daje boobu ñu am ak ñoom wax dëgg yàlla indi na bunt te indi na xéewal noonu lañ ko mën a tuddee ndax bu fekkee ni indi nañu produit boo xam ne ci àdduna bi mooy produit leader en matière de peinture mu dem nag sur toute la gamme de peinture boo nee kër boo nee lu ñu naan ci bois ciment bois en fait toute la gamme am loolu loolu Tawfekh la te moom produit boo xam ne produit premier la en fait au plan mondial. il y a d'autres partenaires donc yoo xam ne vous les verrez euh, su demee ci wàll sanitaire nga xam ne Kër Mouride dafa nekk ci loo xam ne domaine finition yépp ci batiment alors. donc li ngeen gis les produits tels que Siam Monaco basé à Monaco muy def lépp lu xeetoo ci wàll sanitaire donc dina ñëw alors aussi euh, wàllu carrelage di ngeen gis en fait la première marque en Europe qui s'appelle Aparici donc mi ngi fi c'est des partenaires à nu et côté électricité également di ngeen gis euh, des produits de grande valeur comme Schneider Electric qui sont leaders mondial donc aussi c'est des partenaires en fait de Kër Mouride lépp lu jëm ci wàllu meuble Kër murit da ci yëngu moo xam ay salon la chambre à coucher table coiffeuse ci ay qualité yi gën tout ce Euh, mooy chambre à coucher salon yooyu yëpp moom nag loolu dañoo dem ba Turquie ut fay partenaires yoo xam ne li ñuy def xarañ nañ ci te mu doon société bu mag a mag moom la ñu lëkkalool pour indi en fait cette partie meuble xam naa dinañ ko gis ci beneen côté bi nañu gis loo xam ne jot nañ ko exposé mais yaatu na trop trop trop trop. dinañ yokk gën a yaatal indi partenaire yu am solo yëpp yu nekk ci àdduna bu bëgg nañ ko indi ci dëkk bu tedd bi alors aussi ñu xam ne fii moom mooy base bi. mais Kër Mouride am na benn succursale mi ngi nekk aux Almadies donc euh, en face Graine d'Or euh, lépp loo leen gis fii incha allah loolu bu nit ñi ñëwee fa dinañ ko mën a dinañ ko mën a gis foofu. Kër Mouride weesu nañu jënd ak jaay mi muy wàllum commerce am na ñu ay professionnels maanaam ñu xarañ lool ci wàllum finition batiment donc euh, am nañu expérience ci finition bâtiment ba nga xamante ni am na ay makaan yoo xam ne jot nañ ko defar et c'est très important. nit ñi xam lan la ñu donc on est des professionnels on n'est pas simplement des commerçants képp koo xam ne yaa ngi ci wàllu bâtiment nga bëgg conseil ca la ngay def aussi boo ñëwee fii di nga fi fekk ay professionnels yoo xam ne mun nañ la conseiller ci fa nga war a jëm ak la nga na nga ko war a defee. Kër Mouride indi leen ay gamme de peinture de qualité yu bàyyeekoo ci société ak Zonobel nekk leader mondial ci wàllum peinture ñu indi leen gamme de peinture yu marque bii di di luxe. Euh, société bu ñuy wax AkzoNobel moo koy defar mooy leader mondial de la fabrication des peintures du luxe bi nag gamme bi ñu indi fii Touba moom mooy gamme premium du luxe euh, tax na ba euh, ñu ngi leen koy présenté euh, di ko dooree soo jëlee bâtiment bu bees ci ay couche d'impression yi comme Ecosur Plaster moom mooy première couche impression bi ñu war a def bu ci écosur plaster impression boo xam ni la def lay permettre nga déjà impressionner mur bi pour nga am déjà opacité bi nga bëgg soo paree ci écosur plaster bi am nañ enduit enduit smooth over enduit boo xam ni mën nga ko poser ba cinq millimètres d'épaisseur sans mu am benn coulure enduit bu neex a poncer la et enduit boo xam ni ça donn donne une surface extrêmement lisse soo jegee ci enduit bi am nañ finition yi am nañ finition satinée finition mat finition brillante pour les finitions mat en intérieur am nañ acrylique PVA en extérieur am nañ Weatherguard am nañ Weather Shield am nañ aussi yeneen xeetu finition yoo xam ni c'est plus spécifique comme rain shield peinture extérieure la boo xam ni c'est pour euh, résister à l'humidité am nañ aussi yeneen peinture maintenant la gamme spéciale comme peinture yi ñu mën a gis fi comme roof guard muy peinture toiture pour permettre nga am étanchéité bi et puis protection du béton, parce que les bétons sur les toitures souvent sont agressés non seulement par l'eau, mais par les rayons solaires, etc. Et les, ça qui se brise. Avec le roof guard, d'une prote protection contre le soleil, indi protection contre la pluie. boo jógee ci brillant dem ci satiné dem ci demi brillant am nañ toute la gamme. peinture yi jëm ci wàllum dénk weñ acier ak yi ci aajow Kër Mouride am nañ ko ci ay qualité yu baax. pour le bois, on a toute la gamme qu'il faut, gamme intérieure, gamme extérieure. Peinture pour les métaux, pour les fers. am nañu ay antirouille antirouille sur fer antirouille sur acier galvanisé antirouille sur aluminium. Kër Mouride doon amal inauguration maanaam doon ubbi ay buntam ci dëkk bu sell bi di Touba. ci teewaayu ay kilifa yu takku lool ak ay partenaires am yoo xam ne ñëw nañ ñu amal fa visite bu yaatu ci mbooleem espace yi nga xam ne ci la exposé seen produit yi Kër Mouride ñoo ngi leen di xaar ci lépp lu jëm ci seen finition bâtiment électricité plomberie peinture décoration sanitaire ba ci meuble ci produit yu baax ci marque yi gën ci àddina bi ñoo ngi ubbi suñuy buntu ci Touba ci tali janatul maxwaa bi fi tolloog daarul tanzil dend ak Eligia mën nga jokkoo ak ñoom ci 77 640 56 76 wala 77 201 93 93 wala 77 728 18 09 Kër Mouride ñëw leen gaaw ndax mooy seen kër.